asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah ñoo ngi nuyuwaat ñëpp di leen masaw waa coono waaye nañ koy waxee boobu ba léegi coono ji farata la ah, bu jar a posé la nga sëy ak yi ci aju ak yi ci dajale yi ci greffé wu yëpp gis nga muy mbëggeel di ci des yëpp ba ci cofeel ak li muy am am doole boo ko jëlee muy baasu sëy rek ci kàmb nga jëm inévitablement xam nga sëy cofeel li muy foor foor ci sëy weesuwul peinture ci bâtiment cofeel li muy foor foor weesuwul peinture ci bâtiment lu mu taaru taaru terewul bâtiment bi taxaw na kon nag ni mu ko indee gis nga kuy tabax sa bâtiment balaa ngaa lijjanti peinture lijjantil fondation bu dëgër te sax man yaakaar naa balaa ngaa lijjanti fondation bu dëgër seet ba xam sa terrain danay inondé dem den boo njëkkee foofu soo ko xool fondation bu fondation gi dëgëree ba pare te muy jàmm yàlla nekk base bi respect soog a ñëw waxuma nag la kenn ku nekk bëgg a tuddee respect waaye lay respect ci boppam soo ko ñëw tegu ci kawam intimité tegu ca kawam ndax nag ah pourtant day dañ koy wax rek pourtant <laughs> démb ci oto gi ñoo ngi koy wax ñuy woowee kaakat yi mooy kàccikat yi rek ah déet dañuy waxante dëgg ndax kàcce rek lañuy def loo xam ni wóoru la fekkewoo ko dégg rek nga ci am nga bëgg cee waxtaanee ñaata waxtu te lépp di kàcc moo tax loo ci gis dañuy xeet ne la nangam de bañ waxtaanee woon bële paase ndeke de affaire yi nañ ko waxee nangam ndeke demee woon noonu maanaam yow da dégg ay kàcc dolli si say kàcc joxe. gis moo tax intimité boobu di lu am solo xam nga muy soxna yi di góor ñi xam nga nga toog ne aji anta yow sama waa ji lim ma def tooñ nga tooñ nga ñaar tooñ nga sa borom kër tooñ nga sa bopp lu tax tooñ nga sa borom kër ndax weeral nga ko ci mbedd bi loo xam ni warul woon weesu buntu néeg bi waaye tooñ nga sa bopp ba nga xamee ni aji anta mooma xamoo xelam moo ngi la nga nga xëy jaaree fa mu lay mu lay encouragé ci musiba di la ci encourage di la ci encouragé ba nga xëy génn mu dugg boo xëyee ne ko ah lii nag <laughs> mu ne la lii nag nga ñàkk waxuma la nga ñàkk waaye bàkkaar nga ciy gàttu ndax sutura bi war a am ci sëy ni mu waree góor noonu la waree jigéen ndax li Serigne Cheikh waxoon a tax sëy benn néeg la ñaari lal la lalu boroom kër ak lalu soxna keneen ku fa mënti dugg ak ku mu mënti doon di seytaane ah te seytaane nag yaakaar naa ñoo koy nafaraat sànq yàq rekk kon nag intimité boobu gaa sax boo ko analyser ba ci biir dangay xam ni bokk na ci respect bi waye def di lu important motax il faut gannaaw respect bi ñu tegaat ko ci bàyyente xel gi ku ci nekk di sóoraale sa morom di bàyyi xel sa morom mais gis nga dafa am secret boo xam ne ñu bëri xëy na dañ ko comprendrewul ci sëy xam nga <laughs> benn waay daf ko wax mu ne gis nga xëy na moom moo ko indee ci góor waaye ni mu amee ci góor noonu la concerné jigéen itam mu ne gis nga nga gis sa jigéen mu jaral la lu ne pour nga jot ci moom boo yaakaar ne boo ko takkee rek jeex na daanu ko mu ne ndax jigéen ju ko jar la nga daj ba ko war nga daj lu ko ëpp pour téye ko fa mu nekk parce que valeur waaye li ma wax a ci nekk ni mu amee ci góor am ci responsabilité am jigéen def ci am responsabilité te mooy sëb góor la mu gis ci yow ba mu doy la nga nangu mu takk la boo yaakaare ne bu la takkee rek jeex na daanu nga faaw nga fexe ba la mu gisoon ci yow ba mu takk la waxuma la na nga ko maintenir waaye war nga def lu ko raw lan moo tax xanaa xamoo ni jigéen bu bëggee sëyam gudd fan faw mu fexe ba bis bu nekk bu xëyee boroom këram jommi ci wàlla waxuma nag ngeen alak ko de ah déet jommi bëri na ay façon xam nga foo koy seet xam nga àndu jullit ci ni ko yàlla bëggee ak rafet gis nga nga féete sa borom kër foo xam ne taxawu ko foo xam ne doxaleeg moom noo xam ne buy julli day yàkkamtee pare pour ñaanal la waaw loolu la yéen wax leen ma loolu lu ko dàq mu wóor la ne julli googu bu ci pare ba ñaanal la ba pare li muy yàkkamte ci ànd mooy jël ci poosam jox la ndax bëgg ci yow ah lu ko dàq lu ko dàq ah mbir yi nag ñoo ngi koy wax ni mu yomb waaye dund ko nag du luy simple noonu nag ndax it sëy dafa am ay réalité am doo fa ñëw moo tax biir bi noonu la bâtiment beeg ya ca way a daje faw ñu jiital ko ba pare ñu koy jiitalee ba mu mat ba pare soo ko lijjanti nag bâtiment bi lu ko taaral ci la mbëggeel di ñëw cofeel di ñëw ñeneen di ñëw waaye yooyu yëpp ci ñàkkee terewul bâtiment bi di bâtiment bi ndax yàllaay baasam bu fa yàlla nekkee li ci des yëpp mën na baax waaye nag li Serigne Cheikh jàngale woon fa yàlla war a tëdd buñ ko fa yëkkatee luñ fa luñ fa defati du ko fees luñ fa defati du ko fees kon naka ah, diw laa bëgg rek loolu du sëy de diw bëgg na ma loolu du sëy de diw dal na sama xel loolu du sëy de mbir yi lu ñuy seet la lu ñuy jàng la lu ñuy jàngat la ku ko def affaire yu a ah, wolof de li saay saay saay saay yëpp de moo ne ko yàkkamti yàqule waaw wala ma ngoog mbir bi noonu la deme tànn gi it xam nga am na aaya goo xam ni bon am na ñu koy fiire góor mooy sangu jigéen waaye est-ce que noonu la deme parce que li soxal yàlla ci wax ji nekkul wane supériorité góor ci jigéen déedéet dafay wan jigéen importance su choix ci buy tànn góoram te mooy jigéen buy tànn faw mu tànn ku ko mat sang faw nga tànn ku la mat sang waxuñ la faw nga tànn koo bëgg de waxuñ la faw nga tàng ku coofe de déedéet dañ la ne faw nga tànn ku la mat sàng gis nga nag ku la mat sàng boo ko tànnee ba pare bëgg dugg ci kër gi ne yaa koy yilif ah, du sotti de du sotti ndax bu fekkoon mat na la sàng kon xelam xalaatam ak doxalinam doy na la looy weddi sa bopp looy dellu ginnaaw yàlla jéppi ndax danga ngaa naafeq yëpp yu jara jàngale ci yëf yi ah <laughs> xam naa nag am na ñoo xam ne sànq ba léegi xam naa boor bi lañuy féete am na fu ñu bëgg ma yóbbu wax ci di ko xaar sànq ba léegi waaye waaye maa ko tey yéexal ko waaw xam naa ni sax suñu mbokk soxna yi daañ ma xaw a mere waaye li ma wax démb dëgg-dëgg la tudd xam nga yàlla mi bind yaakaar naa xam na li mu bind yaakaar naa maîtriser na li mu bind xam ne li daje ci loola léegi nag xam naa ñi ma féetee nay joor dama bëgg a ngeen dégloo ma xel lu sérieux laay wax maanaam du du du problème mu ay kaf du problème mu ay ree lii ma leen waxoon ci àjjuma moo ci nekk dañoo ñëw pour jëriñante ñu nit dañoo xam ni jamono dëngee ak njaxas yi ci am ak formatage yi ñu daj yépp pour yàq diine l'islam ak li ci aju te gis nga peuple boo gis civilisation boo gis àndu nit boo gis boo ko tas ci jigéen ngay tàmbalee moo tax tubaab yi ba ñu bëggee nag sàkkal ñu pexe ñu fexe jël yu bari dugal ko ci boppu jigéen li wax sànq ci la te mooy bëgg leen ni góor ak jigéen ñoo war a mais xam nga li gën a ci loolu la ak yam ba pare wéet ak yow ne la noog jigéen a gën góor waaw ah, ban la ci <laughs> beneen waa ju saay-saay mu ne man li ma gën a yàkkamti ci àdduna mooy dajeeg féministe nga ne ko lu tax mu ne du ñoom ñooy wax ni góor xaaj la ba pare bëgg ne góor ak jigéen ñoo kon ñoom it ay xaj lañu di pour wax leen ne am na logique yoo xam ni ku ci topp rekk tubaab bi di loru lor ñi nga am te balaa nga xam ni nekk caay-caay la nga dem ba daje ñoom seen kër gis ni lañ lañ la génnee yépp ñom ñoo ca xam nga dañoo fexe ba lo jigéen yépp ne waruñoo nangu polygami fexe ba def ko sensation def ko tendance ñi di sotti ay ndox bu tàng fii ñi di sotti ay gu ñi di sotti acide ñoom ñëpp sans exception américains yi nga xam ñoo gën a doy waar ci àdduna fi mu toll nii ñoom ñoo xewal polygamie ndax xam ne ni coow li coow li ah li tax yàlla indi ko ce n'est pas pour rien li tax yàlla indi ko ce n'est pas pour mais gis nga mbir bi ku ko def affaire sentiment rek juum ku ko def affaire émotion rek juum